wajalilaayi maskani tuubaabaat misras mi abijaayi xayri manabaat asalaamaaleykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu mbokk yi noo ngi leen nuyu bu baax di leen siyaare ci turu tubaa ca kanam di ñaanal ñëpp di ci jiital sunu kilifa sëriñ Muntaxa ñaan sunu borom yàggal ko fi te wéral ko ak mbokki taalibe bi yëpp ak mboolem jullit nu dikk ci leeral ni ñu ko baaxoo defee ci Touba ci kanam weer wu nekk ñu wax la ca dugg ci konti Touba ci kanam ak la ca génn ak li Touba ci kanam dese ci ay kontam weer wi nag di weeru octobre moom la ñuy gaaral tey ci Touba versé nañ 68 millions 607 mille

bureau Dakar ci njiital bàyyi Serigne Bousso ak Alhaji Ndaw dugal nañ ci compte yi cinq millions six cent trente mille neuf Pout ci njiital sëñ Ababacar Ndiaye versé nañu ci compte yi soixante six mille Mbacke Adja Diorgay Serigne Mama dugal nañu million. cent dix mille dagana ci njiital Baye Saliou lay dugal nañu ci compte yi cinquante mille Jurbel soxna Nday Njaay soxna Daba Mbàkke million quatre cent quinze mille Kujaan Sëriñ Ibra Ñang mille Xombal Mbay Fay deux cent cinquante mille Louga Serigne Moustapha Bassirou Mboup deux millions six cent trente et un cent Yarawaay Yaa Fatma Dieng cent dix mille Kébémer Serigne Gora Sil un million quatre cent cinq mille Kaolack Serigne Moustapha Touré trois millions cent vingt mille deux cent Saint-Louis Serigne Ridial Soxna Rama Fall cent cinquante mille Taïf soxna Daba Thiam vingt-quatre mille Bambey Serigne Abdou Fall trois mille Kolda Serigne Moussa Sène cent quatre-vingt-seize mille Worosogi soxna May Mbàkke deux cent mille Touba soxna Sodo Diop cinquante mille Vélingara Serigne Mbàkke Gueye cent mille bokkilaa ji Mamadou Fadilou Dia cent cinquante mille Daaru Musti Soxna Muslim Mbàkke cinquante mille versement anonyme maanaam ñi dugal xaalis te xamuñu seen tur toll na ci un million deux cent trente mille seize francs Daaru Salaam Diouf Serigne Youssou Thioune cent cinquante mille département Linguère sëñ Cheikh Jorel Mbacke un million cinquante mill Moudéri sëriñ Basirou Ndiaye cinquante mille Ndiawara sëriñ Cheikh Anne cinquante mille Kellel sëriñ Cheikh Diop cinquante mille Gassane Soxna Faati Mbeng cinquante cinq mille Ayrelao Fouta sëriñ Xaarim Sow cinquante mille croisement jaarumbe sëriñ Muudu Maxtaar Mbay cinquante mille Ngunjaan sëriñ Muudu Caam cent mille Ranérou sëriñ Souleymane Diagne cinquante mille Njàppandal soxna abifay vingt mille Casamance Mamadou Xari Gueye deux vingt mille Daaru Bamuk Serigne Ibrahima Congaan cinquante mille Noobe Lay Ndo Ndoobe Lay Serigne Fallou Fall vingt neuf mille Kolobaan Soxna Thiam vingt et mille Jem Jàlle Kabu Kebe vingt deux mille Madina Touré Soxna Ummi Fallu Mbàkke cinq cent cinquante mille Dakar Yoof Laay Gote Diop cinquante mille Mboro Serigne Djili Seck cinquante et mille Ndioum Gent Serigne Modou mbay cinquante mille li nga xam ne moo daje ci biir réew mi mooy zone nationale toll na ci cent sept millions huit cent quatre vingt mille cinq cent quatre cent sept millions 895 mille 594 bu dee ci bitim réew ñu tàmbalee ko ci zone Asie maanaam continent Asie Liban Aline Badara Dabo 200 mille Japon Cheikh Jigal Diop 315 mille loolu moo jugee ci zone Asie total bi nekk 515 mille bu dee zone amerique continent Amérique Sili Serigne Khadim Mbaye cent quatre-vingt-dix mille Argentine Serigne Pape Soda Sey six cent trente-sept mille Canada Serigne Pape Amar quatre cent soixante mille Brésil Serigne Cheikh Ndiaye quatre cent cinquante mille total bi doon un million sept cent mille bu dee ci zone Europe continent Europe Suisse Serigne Ndiaga Aw huit cent vingt cinq mille Italie coordination bi neuf million trois cent mille cent soixante seize France coordination bi deux millions trois cent cinq mille sept cent soixante neuf Espagne Serigne Malick Dieng sept cent cinquante et mille cent quatre vingt treize total Europe bi doon treize millions deux cent quatre mille cent bu dee ci zone Afrique continent Afrique Guinée Conakry Serigne Abdou Thiam 533000 Gabon Serigne Pape 6 837000 Congo Brazzaville Serigne Alhaji Diouf 250000 Mali Serigne Aliou Wàcc 806000 Afrique du Sud Serigne Mor Dieng 225000 Côte d'Ivoire sëñ Mor Faasa un million deux cent cinquante mille. Guinée équatoriale Serigne Khadim Diop huit cent quarante quatre mille cinq cent. Mauritanie Serigne Ibrahima Sarr un million. Cameroun Serigne Cheikh Niassa Gueye deux millions soixante dix sept mille. boo boolee li jógee ci continent Afrique bi yëpp mi ngi doon sept millions huit cent vingt deux mille cinq cent. bu ñu boolee li jugee ci biir réew mi ak bitim réew ñëw ci Touba ca kanam ci weeru octobre mu ngi toll ci cent trente et un cent cinquante cinq mille deux cent trente deux cent trente cent cinquante cinq mille deux cent trente ñu ñëw ci jaayante bi nga xam ne moom du bokk ak carte de membre ak euh, récit bu dee ci biir réew mi jaayante bi. 36 millions 6410 dugg na ci bu dee ci zone Europe jaayante bi 2 millions 93 mille 500 dugg na ci. bu dee ci zone Afrique jaayante bi 2 millions 667 mille dugg na ci kon totalu jaayante bi lépp mi ngi toll ci million millions 766 mille 910. bu fekk see li ñu tuddoon léegi ci carte de membre agressi total bi day doon ci weeru octobre bi cent soixante douze millions vingt deux mille cent quarante deux. cent soixante douze millions vingt deux mille cent quarante deux. ginnaaw bi ñu waxee li dugg si ci compte yi ñu wax nag li nga xam ne moo ci génn ci liggéey yi Touba ci kanam di amal post de santé ndaam. ci weeru octobre 4 millions 862 mille dem na ci santé université 500 mille dem na ci santé Touba Ndiarème 3 millions 195 mille santé Darou Khadim ci de santé bi 220 mille commission santé li ñu jël ci weeru octobre mu ngi toll ci 66 mille commission communication trois cent dix mille charge fix ak salaire ci weer octobre cinq millions cent sept mille cinq cent commission membre mooy carte membre yi ak reçu liñ koy liggéeyee weer octobre bi def nañ ci million cinquante cinq mille budget de fonctionnement mu ngi toll ci un million ci weeru octobre opération defar yoon yi muy assainissement bi ak tali yi ci weeru octobre bi def nañ ci trois cent quatre millions sept cent vingt huit mille cent quatre vingt seize commission logistique ñi nga xam ne ñoo yor jumtukaay Touba ci kanam yépp vingt sept millions cinq cent soixante sept mille deux cent vingt cinq commission massification moo yor yaatal gi ci Touba ci kanam quatre cent douze mille commission organisation six cent quarante neuf mille commission leeral deux cent mille moo ñu yor wàllu montage su lampa lampadaire yooyu ci mbedd yi. frais yi ñu def ci bureau Dakar cent six mille trois cent frais bancaire mooy yi ñu dagg ci compte ci kanam quarante quatre mille trois cent vingt trois lii lépp bu ñu ko boolee. Touba ci kanam génn na ci weeru octobre bi million millions 27 mille 544 bu ñu jëlee nag li nga xam ne am nañ ko ci weeru octobre te muy million vingt 22 mille 142 mu fekk si li ñu amoon ci weeru septembre li fi nekkoon ci weeru septembre 1 milliard 86 millions 551 mille 700. 99. bu ñu xoolee li ñu am ci weeru octobre muy 172 millions 22 mille 142 mu fekk si li ne woon ci compte yi ci weeru septembre di 1 milliard 86 millions 551 mille 799 lépp dafay doon 1 milliard 258 millions 573 mille 941 ñu daal di ciy génne décaissement yi ñu wax léegi. mooy li ñu génne ci weer octobre bi mu toll ci trois cent cinquante millions vingt sept mille cinq cent quarante quatre kon li nekk ci compte yi ci fin octobre mi ngi toll ci neuf cent millions cinq cent quarante six mille trois cent quatre vingt dix sept neuf cent huit millions cinq cent quarante mille trois cent quatre vingt dix noo ngi sant taalibe yi yëpp ci seen guy si Touba ci kanam waaye di jaajëfal collecteur ak collectrice yi nga xam ne ci ñoom la ñuy jaare ngir mën a barkeelu ñu ngi ñaanal Serigne Mountakha Mbacké mu yàgg fi lool te wér te matal yéeneem ci liggéeyub Serigne Touba wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu wajalilaahi maskani